tey nag fait divers dañuy am euh, ci kaawu Ameth Ndoye la ñëw kooku nga xam ne nee naa journaliste la kenn xamul lan la mu ngi woon nekkoon fële ca Sen TV daal def ab choc nag ñu gis ne dafa am benn attestation bu mu yor ñi naan dañ ko toppee faux usage et faux ak permis bi nga xam ne ñu naan moom moo ko moomu ko ñu dem seetaan élément bi ñëw daal cee gën a mën a xuus. ñu arrêté Ameth Ndoye otoom jël permis maa ngi dégg ñu jël seen waxkat yi naan leen Ameth daf doon dawal sans permis lii attestation bi ñu jox Ameth bi ñu jëlee permis la xoolal numéro permis bi mi ngi nii ñu bind ci permis de conduire numéro 10 82 76 37 bi ñu jëlee permis de conduire am jox ko attestation bi ñu ko joxee attestation mu dem lii assurance oto bi la parce que damay bañ ñu jaxase seeni xel carte grise oto bi mi ngi nii permis bi ñu jël attestation bi mi ngi nii prolongation attestation bi moo nekk nii ñu jël permis mu dem ñaari yoon ñetti yoon pour jëli permis ñu koy gololo mu dem ba même attestation bi ay pexe dëgg lañ def pour jotaat ci attestation bi parce que même dañ bi ñu jëlee permis ba pare ñoom dañoo def ay pexe ba nanguwaat attestation bi bi ñu demee di dox ci loolu ñu wax ak seen kilifa bu mag mu woote service des ñu ni ko dindi nañ permis Ameth Ndoye ci système bi c'est pourquoi on a décidé de porter plainte Sénégal pour que permis bii nga xam ni bind nañ ci numéro bii ñu attesté ko ñu génne ko dans les meilleurs délais. wax ne rek ci kanam tuuti sax dinañ dem wuy ji commandant bu bi pour wan nit ñi ne dawuñu visite technique bi tudd ko visite technique bi valable na ba deux mille vingt cinq pour ñu xam ne. lépp lu àndoon man ak oto bi ay pièces yu mat sëkk la yoroon. bu ñu ñëwee nag ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi justement devoir la ñu wax xam nga devoir dafa bokk ci respect institution yi moo tax ma ne si kanam tuuti ñun dañuy dem wuy ci du bokk mukk ci sénégalais yi diggal sénégalais bu ñu la wooyee bu wuy ci wala ñu ñuy woo ñu bañ a wuy ji jamais de la vie jomb nañ koo def ndaxte booy woo nit ñi ci cet dafay fekk nga raggu ba pare sénégalais bu benn institution soxla da ngaa war a dem wuyu ko moo tax ñun dañu wax ne devoir bu kenn ku nekk sénégalais yi war a am ñun dañ ciy jiitu di ci woo sénégalais yi ñu delloo réew mi ci li nga xamante ne lii moom mooy respect des institutions jox président de la république cëram jox képp koo xam ne ndawal buur nga sa cër jox sunu kilifa diine yi seen cër ndax nga bëgg ko ak nga bañ ay institution lañ te ñoom seen bos a gën a wóor ndax yàllaa leen ko def voilà mu ngi noonu dégg ngeen kàddu yi nga xam ne Ameth Ndoye amal na ko ak ki nga xam moo di Cheikh Yérim ginnaaw seen ndaje bi nga xam ne amaloon nañ ko niki démb avant arrestation yi nga xam moo di Ameth euh, nañ la rek nga daal di jaare foofu rek xuusaale ci nga waxal ñu sa ak naka nga gisee arrestation yi nga xam moo di Ameth moom nag moom nee lépp ci politique la ndax na dañ koo topp waaw mu ngi noonu daal nga ni ci sa xalaat waaw di wax ange bilahi mina shaytani bi ma leen nuyoo yéen ñu ma bokkal plateau bu mag bi di jom kenn ku ci nekk maa ngi koy jox wàccuwaayam di ko nuyu ci di ko nuyu ci turam ak santam eh, Ahmed daf ñëpp man jour bi Sonko di def di woote arena certes boobu maa ngi Kaolack dama am dëj ma leen ciy félicité waa Pastef yëpp di ci eh, di ci félicité itam président Ousmane Sonko bu Pastef ndax moom moo doon wax c'était pas PM moo nekkoon di woote ginnaaw bi ñu leen ci félicité ndokkal leen ci ñaanal leen ci yàlla leen jik ndax ku xool loolu rek xam ne ñoo ne ci xoli sénégalais yi ba tey itam kon keroog bi muy jooy jàpp naa ne jooyul mobilisation jooyul 1000 francs jooyul don de Dieu bi nga xamante ni itam eh, borom suna taala may na ko Ousmane Sonko ndax boo demee ba nit ki yéem la xamatoo mooy kan kon moom mi ngi doon jooy ka mu mbëkk li tax ma mbëkk ko lan moo tax waxuma sénégalais yi dëgg waxuma lan moo tax lan moo xew man nag problème bi dama ci dégg ñaari version mu jaaxal ma lool itam ndax ñun itam ñu ngi ci tali bi jàpp naa ne boo defee infraction su la police jàppee dañ lay bindal attestation bu fekkee ne dañ la bindal attestation si dañ lay bindal attestation suñ la bindalee attestation jàpp naa ne dañ lay jox euh, dañuy nangu sa carte grise ou sa mi ou mun nañ ko nangu ñaari parce que man bi may doog a dawal euh, euh, visite technique bu jeex lañ ma jàppee te dañoo jël sama carte grise jël sama permis muy sama ñaar lañ jël ba pare ne ma oto bi dañ koy gaare donc certes bañ ma bindalee damaa dem toog xëy dem uti rendez-vous dem passé visite technique oto bi ñemewu ma ko dawal parce que su ma dëgëroon bopp dawal ko suñ ma jàppee dañ koy fourrière kon jàppal ni man damay ñàkk sama oto itam donc déglu naa ko ci waxu soskat boobu noonu moom journaliste bu perte bu réer boobu nga xamante ni visibilité lay ut yàlla may na la tour mais newoo ci xolu jaam yi kenn xamatul kenn werantewul ne Cheikh Yérim Seck journaliste la ou kenn xamu ko réew mi doo fi gan paasoo ñëw ñëpp xam nañ la mais xam nañ la ci lu dëgg xam nañ la ci sos visibilité bi ngeen di o askan bi ak di ci oo jaam ñi da tàllal xaar xam ne da ngeen a fay da ngeen jël aaj dem leen ngeen toog xale yi ngay o noonu ñëpp leen o ki nga toogal muy Ameth Ndoye mais xam nga ne moom du wax katu dëgg te biir na leen yow li mu wax dara du ci dëgg dara amu ci mais wax ko dëgg parce que yoo tamit yéen a ngi accusé policiers yi donc man du ma avocat policiers yi police yi dinañ génn parce que sosal ngeen policier sosal ngeen waa impôt et domaine euh, ñee ñiy defar permis ni ngeen neen kay turam service des mille turam ak santam nekkatul ci seen registre xawma lan dañoo reyee permis donc ki nga xamante nee na permis bi mu yoroon du moom wala du turam moo ci nekk kooku nan la mën a génnee nan lañ mën a dindee turam ci ci ci ci yooyu euh, technique ci yooyu kayit donc foofu aussi am na sew-sew maa ngi xaar police comme ñoom lañ tuumaal ak waa service des mines ñu indi si éclair éclaircissement beneen bi ci topp tam deuxième as kii bi ñu am deuxième attestation bi ñu am parce que attestation si ma ñaari attestation la bu ñu la jàppee nga ñu bindal la bee 48 heures la attestation war a am su jeexee yaa xam da ngay renouveler wala nga dem fay 6000 ou 12000 luñ la bindal nga dem fay jël say papier donc moom bi ñu ko jàppee dafa fayul dem jëlee ay papier wala permis biñ ne amu ko moom la wala permis bi nga xamante ne permis jàmm doon dawalee wala wala xaw ma lan la ci def ku weddi nanga nga laaj Sidi Diop kon moom la muy jooy moo ko xamoon mais jooyu mobilisation Sonko gis nga réew mii amul kenn kuñ fiy jàpp wala ñu lay teg ci axe ñu ne dañ koo politiser wala ñoo def kumba am ndey a kumba amul ndey ku waxal sa digganteeg yàlla xam ne kumba am ndey ak kumba amul ndey jeex na ci réew mi Sidi Diop la gën a foor Waly Sow la gën a foor te ku nekk jàpp nañ ko te dañ koo dem lijjanti boobu ci dignement kon yow itam say erreur ak la nga def ca fiir ba nga def accident ba nga def xam nga sa digganteeg yàlla lan nga def donc luñ la ci jàpp jàppal ne da def infraction ka nga mbëkk u ba nga def nga excusé wu wax sénégalais yi dëgg bañ a toog di jaaxaan di tuur ndox xam ne sa bopp ngay tuur ndox ki la ngemb muy Seex Yérim yéen a yem yéen a bokk teen laxasoo leen ay goj ndax kenn nawlaw leen ci réew mi ak ñooñu di wax ñooñu ñëpp toog xam nañ ne yéen Macky leen yónni Amadou Ba leen yónni pour ngeen ak di wax man daal li may ñaan ci réew mi mooy yàlla nañ yàlla may élection bu paisible bu transparent yàlla def fi jàmm que gouvernement bi fi nekk itam ñu am majorité à l'Assemblée su fekkente ne mën nañ gagné lépp sax ñaan naa ko yàlla ba set euh, sept député Dakar yeeg diaspora beeg 160 yëpp ñoo xam ndax dañuy yokk wala ñu fi bàyyi lañ fi nekkoon lépp yal na ko yàlla jox loolu sama ñaan la. Mhm. oustaz gannaaw bi nga dégloo kàddu yi nga xam ne Cheikh Yérim yëkkati na ko euh, mun nañ sax wax ne daf doon layal ki nga xam ne moo di Ameth est-ce que tamit nekkul daf ko jéem a dugal parce que jël nga kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci takk der yi est-ce que newul di ko dugal léegi mu koy layal. waaw xam nga euh, problème bi njëkk am mooy police liggéey bu ñuy liggéey. infraction gën tërëy ne moo am nag ñu arrêté la laaj la permis nga ni amuloo permis dama ni su fe xam nga version yi dafa bari moom. dafa bari waxal bi nga bari waaw li nga wax ni amagu ci de. waaw moo tax may wax rek bu xamul dañ koy duñ ko saraxe duñ ko saraxe dañ ko dimbali. kuñ saraxe <laughs> buñ la bàyyee nga dem mën ngaa wax loo xam ne saraxe boobu dafa bari. léegi saraxe amagu ci asar ah, version yi dafa bari. Mm, ñu ne leen mu jàmbur la doon demale permis bi mu demee du permis kan ma wax loolu. permis bi ci la amu ci la wax déglu ma Assane. du moom moo Assane version a. waaw déglu permis bu ñu moom la ñu war a fekk ci moom kuy dawal oto. Hmm. boo ñëwee bu bu policier ñëwee mais sa yur attention. permis la wax ni amul man version yu ma dégg maa ngi ñëw maa ngi ñëw ci attestation bi non moom la yoroon permis bee jiitu moom la yor xam nga ni contrôlé duñ ñu ko arrêté takkul ceinture waaw moom laa la wax permis le huit da moom nag a jàpp mm-hmm. bu fekkee dafa def infraction sa mm-hmm. yirim waru koo layal mm-hmm. yaa ngi may bu baax bu dee infraction la def ba police du ñu jékki-jékki di tooñ koo xamante ni ah man li ma jàpp bu fekkente ni pays bii dëkk bi actuellement ni justice normale yoon normal la ñuy doxal li nga xam ne moom la Diomaye campagne woon Ousmane Sonko campagne ko du ñu jàpp Ahmed rek ci nii nii par hasard su fekkente ni dama ni attestation bi turam ndekku ci jàpp ko day daal war bu fekkente ni amul permis bambi jàpp ko day daal war léegi lan moo ci indi yërim laani ba mu koy défendre ndax police yërim la jàpp damay laaj rek waaw man d'accord dama ni attention xam nga ak yërim moom loog si wax tooñ ko dama waaw xanaa as la mu wax ngay weddi la mu wax ngay weddi. non weddi xoolal man ñëwaguma sax. non daa war a dugg si li yirim wax mu ne yirim li mu du dëgg. da war a defar xoolal xoolal Sénégal bu dee bu koo am sa rek bu nekkul ci yoon su defee su defee infraction wala mu def loo xam ni loi àndu si nga génn bëgg koo défendre ba war ni loi ànd na ci bu yàggee réew mi du avancé. mais ku wax ne yii xam nga ne Ameth a garaaw dafa joxe ay numéro instant bi Ameth ay numéro dama ni yéen joxe na ay numéro. joxe na ay kayit. expliqué na li mu expliqué léegi. cela veut dire que ni kon moom loolu mu joxe na ni Ameth mi ngi ci yoon. waaw police est ce que dinañ dinañ jàpp Ameth ci par hasard. jël jël ko rek jël nañu permis wala jël nañu attestation jàpp ko yóbbu ko téye ko non non asan am na problème bu ci am ah, problème bi ci am nag leeruñu ñun ñi ñëpp dañuy indi suñu xalaat teg ko ci taabal ji moo tax bu nit amee xalaatam di ko teg baleen ko rek mu exprimer est-ce que yaa ngi dégg baleen ko non dafa xam mu lay woman di la dugal rek ci ay kàmm nga naan teel a dafa muus waaw Assane mën na lay wax ma te du la laal waaw Assane mën na lay wax ma te du la laal loolu dëgg la léegi nag gis comme dafa gis yaa ngi génn lu ah. bëgg laa kar kar bu lekk mais yow da dama ak libre waaw ah, tey moom gis nga fi nga may gis nii tey moom ànd naa kaay ma wax fi nga gis nii kaay ma taxaw benn affaire euh. gis nga coow li gars yi coow li coow ci Déthié Fall nii hmm. Déthié kontaan ci Déthié Fall ni mu allez oustaz al waa ñëwaatal si non tey dama ne ah, Déthié Fall laa ne la. waa ñëwaat si toolu ci nit ñi am. dama cee kontaan. ci nit Déthié Fall. demee xel ñu may doon Déthié Fall war na Déthié loolu du erreur. waaw ñun lu arrangé Sénégal. lañuy eh, xool man man lu arrangé Sénégal. mais damay dellu soit rek. ci attestation bi. Basan ci attestation bi laay delluwaat su fekkente ni daal dafa def erreur. Mhm. nañ ci wax jàmm. ndax fii àdduna la erreur mu danga koy erreur mu danga koy ci def jàmm wax ci jàmm fii àdduna la xam nga lu lu bon mooy nekk ci njuumte a pare bëgg wane ni damaa ne ci dëkk waaw kay Sénégal bu fekkee ni bëgg nañ mu baax dëgg la yonent bi nee na unsur akaaka zaliman aw masluman mhm. sa xarit dimbali ko Moodu mhm. su tooñee nee ko yaa tooñ mhm. loolu koy dimbali jarul débat jarul amet jarul dugg na fi génn ku tooñ nañ ñu ne la yaa tooñ ki ñu tooñ ñu la yaa tooñ li laa macha allah am na solo c'est la vérité. Ahmed a baax a baax. Ahmed. ah. non boo tooñee neel maa tooñ. man maa juum. am na lu xew xam ne yëgu leen ko. ndax fii lu dugg police dinañ ko poli ko médiatiser. te moom dafa na Ahmed moo tooñ. digg wala enquête moo koy wane après waa ah. ah. ñoom lan moo leen ah, leer ne instant Ahmed moo am moo moo tooñ man boo ñëwee naa la wax man. man damaa leer man la wax. man damaa leer ki tooñ nañ ni ko yaa tooñ. lu leer nañ nga wax. bu Ahmed bu tooñee nañ ni ko Ahmed yaa tooñ. oustaz dinaa ci ñëw joxal kii rek. ana ban jàngale ma ci jàngat bi ma ci def eh, jàngat bu am solo la mais du gudd. Mhm. da guddal nag. non du gudd ndax xam naa amul temps tey war ngeen see mën a gën a leeral lu ëpp solo li may leeral. xam nga lépp nga xam. daal loo ci bëgg ah, xaaral mhm. lu <laughs> ma xam ne dama bëgg daa ko ci lépp xibaar bi ci yow laa ko déggee boobu Ahmed Ndoye waxagul. dëgg la wut dëgg. waaw ba nga jox ma numéro ko mu fiir. waaw kon doo ci gàttale dafa nga bëgg cee bi barke alxuraan. ci télé ci télé laa toog di wax. xam nga affaire bi. <laughs> bu fekkee Assane moo la jox numéro bu dee Assane moo la jox numéro ki ñu fiir nii. kon moo ah. yow war nga Assane ndax waroo ko war a waxee fii. am Assane def na ko Assane def na ma ko ci kër parce que Assane mënul jël secret am mënul jël secret am. Assane ah, moo la jox numéro waay. oustaz eh, waaw bàyyi damay wax wax sénégalais yi moo gën a réseauté ci Sénégal barki yonent bi Assane déglu ma la xam nga man ci sama nuyoo wax naa ko di dox di dekkal moo ëpp réseau Sénégal Assane lu xew ci réew mi xam na ko lu xew ci réew mi xam na ko dafa ndax Assane démb ci suba Modou sa temps ngay jël de. wuy ma Assane ñëwal ma eh, doo yokk dara doo yokk dara non non non non. Assane déedéet déedéet. doo yokk dara doo yokk dara. may ma rek xam nga tey damaa feebar. barke salaatul fa damaa feebar. mais Modou dama lay féliciter di la wax am nga bon essence vingt litres ci man. Ah. parce que gis nga kii. ni mu rejeté li may wax ak moom xam nga dugal na ma fii ci mbirum Karim Wade bi ci campagne. mu wax jox ma ma wax jox ko oustaz rek kaw weer ana weer. amul sutura yi lay nekk suuf am na <laughs> am na solo. non na solo waxu ma ko de. waaye mu la leeral numéro ki ñu fiir yow Assane ko mhm. ah. jox ko. waaw jotee dañuy xëy jox ko ko moom moom mu saytu ko ba xam dëgg loolu du dëgg. bi ñu ko ko joxee ànd naag numéro téléphone moom mu woote muy sonné jëlut mu ni comme que amuñu si lu ñu leer duñ ko traité. Mhm. ñu bàyyi mu dem ba yàlla indi loola. Mhm. si penc mi. voilà léegi nag man Ahmed Ndoye mënaguma koo jox toor. ba tey sax hmm? ma ko toor. man jox toor waaw ndax xam nga lu tax oto la yor di dawal te bi mu toogee wane na carte grise am hmm. wane na assurance am. wane na li ko policier bi jox pour mu am droit dawal ni lii la ma policier bi jox attestation bi mi ngi nii kon ñett yooyu yëpp mat na mm-hmm. te ñoom biñ ko arrêté bu fekkee nekkut si yoon ñu nangu oto bi yóbbu ko gaare ko police ni ko yow demal oto ba ba léegi nii ma nga fa mm-hmm. Ahmed Ndoye di def def ay émission di kii ba bañ taxaw ba war leen a plainte ñoom ñu daw jël si ko ba leen a plainte ñoom ñu si lañ daw fekk ko fa mu nekk ñu jël bu dee yirim bu dee yirim li mu def baax na ndax tey jii sa nit ngeen toog di def benn programme mu wan la mu indil la preuve. Mhm, ni la sama carte grise ngi nii sama assurance ngi nii. police bi moo nangu sama permis mais kayit bii la ma jox mais yërim lu mu war a def wane ko. Mhm. kayit ba nag am ab nee na ko permis ngi turu Ahmed Ndoye nga sax bind nañ si lañ sa war a bind police la bu fekkoon ni tey jii Ahmed Ndoye dafa wane aw kayit ñu ni lii kat du kayitu police mais facture la solution TV si ne. Mhm. ñu ne ko Ahmed Ndoye def nga erreur yow këyitu solution tii bi ngay jël di pirate waa police mhm. mais Ahmed Ndoye deful loolu affaire police la yor mhm. yor carte grise yor permis kon luy problème bi mhm. moom lañ xamut léegi nag ñuy xaar yoon yoon bu ñu dikkee dañ ne dinañ ñu leeralal ñu carte grise ga moo baaxutoon wala assurance bi moo baaxutoon wala kii ba nga xamante ni jox nañu ko police moomu ko dañ koo pirate police moomu ko wala ñun ñi amoon na permis wala amutoon permi dafa lijjanti dara wala lijjantiwu dara mu leeral lan ñu ko bañ xam bu ko defee ñu doog a xam mais fi mu nekk nii moom même bu amul permis mi ngi si régal bu amul permis mi ngi si régal ndax yor na kayit bi nga xamante ni moo ko war a mën a dawalloo dañ ne la bu amul permis kii attestation dañ ne 48 heures la war a am non nee da ko am ba mu jeexee dafa dem ñu progressé ko ñu renouvelé ko waaw ah, ah, ok nee dañ ko renouvelé te léegi loolu moo renouvelé waat ah moom daal génne na këyit yëpp waaw kayit nag moom fii yaa ngi koy génne yaa ngi ci dina am cachet xam ban police la ak kan moo ko def léegi nag police bi la bu loola na ba fekkee nag ka ko defal hmm. loola ñoom ñoo koy lijjanti ba xam am na droit defal ko wala amul droit defal ko ndax kookaa yor permis wala kooko yorul permis hmm. Hmm. loola ñun d'accord alaaji Modou nee nga yow di nga ci ñëw li ñu fir nga wan ñu lu ñuy firndeel ne liy firndeel ne ah, kii nga xam ne moo di Ameth Ndoye moo nekk ci toor d'accord léegi balaa nga cee ñëw rek dama bëggoon nga leeral ñu tuuti rek parce que ñu ñëw ci tuuti parce que li ñuy wax wàllum attestation boobu noonu mhm. déjà nee nañ le huit lañ ko ko joxoon mu war jeex la dix mhm. donc bi mu jeexee ba ñu ngi ci le vingt deux lañ ko jàpp xaw ma le vingt trois donc attestation boobu nag mën nañu wax dafa expiré ñu utalaat ko beneen d'accord léegi problème bi mooy ñu ngi naan attestation bi baaxul parce que ki ko arrêté ne na nekkul signature léegi bu fekkee ki ko arrêté attestation boobu signature am ne kon corruption dafay am waaw léegi léegi corruption boobu noonu kan mooy toor bi du ñoom poli ñoom policiers yi nga xam ne ñoo ko def waa léegi bu ah, da ngaa ay parce que police moo ko defal mën nañ laaj non police moo ko ah, defal ah, du médecin du médecin du jaakatu caaf du man mii toog fii attestation si attestation police moo koy def signature police moo si ne mais problème bi mooy neen police wala gendarmerie d'accord mais nee nañ le problème en est que attestation boobu noonu du ki ko arrêté moo ko def donc nee nañ signature nañ ko xool ba xam kan moo ko def attestation donc loolu buñ ko xoolee ba si biir donc corruption am na waaw man de. ak kii la man dama lay wax léegi man. dama dama andi tuuti histoire. Assane mi démb ci suba tey la ci suba. Mhm. dafa ñëw mu expliquer ma fay bi. Assane ah, mi jot na xibaar fanaanoo na ko àllarba. àllarba ci guddi waaw ah, fanaanoon na ko. am na information na ko moom. bi ñu xëyee ñuy def briefing. Mhm. moom mu wax ma xibaar bi. ba jox ma ba won ma affiche bi nit kii bi ba won ma turu waa ji ñu mbëkk. Mhm. ba man ma woo ko muy sonn rek jëlul ndax ñun. moom nañ ko traité balaa ñoom yërim di génn di wax mm-hmm. mais bi ñu vérifié dama jotul waa ji moo tax après man leen noonu nañu xaar information buy leer xibaar bi ñu jotoon mooy dafa am ku mu defal teel accrochage ci circulation si bi xotaan mu nekk lu mm-hmm. normal mm-hmm. circulation oto yi ciy daw ak moto yi ñoo ciy daje loolu lu maanaam loolu feebu ba banaan la du dara mu présenté ay documents yu mu yore il s'est trouvé que ne attestation la yore ok attestation bi dama bëgg après nga may ma tudd ma ñëw ci attestation yi. ndax ñun moom ça fait plus de vingt ans ñuy dool bi Dakar. on sait ce qui se mhm. bi mu ne attestation la yore am sa permis mu ne dañ ko téye foofu erreur la pour man ci gendarmerie wala ci police. Mhm. mais mun nañ jàpp ne par xam nga tey bu ñu ko jàppoon foofu rek débat bi mun na gën a yokk. Mhm. c'était pour lu permetre de se rattacher de de se rectifier. yaa ngi dégg ñu ne ko demal jëli sa permis nga ñëw. nga bàyyi fi oto bi mu ñu immobiliser oto bi moom war dem jëli oto bi dimanche. Mhm. lundi mardi mercredi ba jeudi dañuy waxante dëgg rek ñun ñëpp ay borom oto lañu man sama oto waxuma la sama man sama këyit boo ko téyee defal ma attestation tax attestation bi li nga war a xam c' est que mun na remplacer permis mais dafa am durée bu ñu koy mhm. bu ñu koy jox bi ñu ko jàppee le huit mhm. attesté ko dañ ko ne jël si la sa permis au plus tard le dix à seize heures il faut nit ñi aussi ñuy xam ne wax léegi xam nga fan la ñuy renouveler attestation parce que oustaz bi jël permis bi xam nga man problème bi ma ci kaw mooy attestation bi a dutee ci attestation ndax policier bi lay attesté daf ciy def matriculum mhm. bu la bindee ne dafa la arrêté pour non port de ceinture dañ lay wax ban brigade la mu jox la matriculum matriculum moom mhm. parce que boo demee di jëli di jëli sa permis soo ko joxee ki lay jox permis bi day xam police ban moo la jàpp te gisuma attestation ma gis ci réseaux sociaux yi gisuma ci matricule policier bi muy benn en muy benn fee biñ ko nee le 10 jël si sa permis bu demee fi ñuy renouveler attestation mooy nga dem jëli sa permis fekk policier bi déposé wul permis bi euh, ci brigade bi ndax policier bi aussi dafay liggéey mun na jël permis yi dem ñibbi ak moom te lu am lu bari luy am la bu demee ñibbi ak moom euh, boo xëyee parce que bu la joxee deux jours le 8 le 9 yow nga dem fekk police bi déposé gul permis bi ndax le 10 la la wax nga jël si ko. soo demee dinañ la ne permis bi ñëwagul ñëwaatal suba ndax attestation mi ngi valable mais boo ñëwaatee le 10 bu fa permis bi nekkul ki fa nekk dafa am obligation prolonger la ko te bu la koy prolonger ci même du defal beneen attestation ci même document bi ci lay bind ci vide bi ne prolonger na ci deux jours defaat ci cachet ñu xam ne attestation bi di prolonger ko prolonger nañ ko deux jours. Mm-hmm. pour permis bi ñëw. il peut tamit permis bi réer en cours de route maanaam bi jël ko. permis bi réer ko ci biir bagage yi gis nga defee bu boobaa dafa am beneen procédure booy tijji ndax loolu noonu mun nga dem ba génne sa duplicata duplicata ni ñu koy génnee mooy da dem ñu defal la beneen tirage permis de conduire léegi nag man li gën a ñaawal sama xel mooy ñoom déclaration bi ñu def démb moom Cheikh Yérim Seck mm-hmm. gis nga réew mi na fi mu toll nii ñëpp fajar la ñuy yeewu kenn bi danteetul mm-hmm. kenn bi danteetul lu ma doon bëgg mu leer am Ahmed Ndoye kan moo ko wax ne dafa am importance ba la administration dem ci ci donné wu permis di ko effacer dama bëggoon ñu wax ma ñu toog ci table boobu j'ai beaucoup de respect pour ces personnes là mais dama bëgg ñoom ña fa nekkoon ñu wax ma ban importance la am ci réew mi ba ba écoutez man ña fa nekkoon kan laa ci xool di teen Cheikh Yérim bi leen sut moom su ma ko xool dama koy xool jàkku du ma teen xeebu ma ci kenn nag mais dama bëgg wax ne la am nañ droit def seen politique am nañ droit bokk fu leen neex am nañ droit waxee nu leen neex mais dama bëgg a wax ne la amuñ benn cër bu ñu amul ñun ñii ci réew mi ba ñu war leen xool ci kaw. Mhm. léegi yow am na ndooy ngeen foog ne état Sénégal ak nu mu toll l' administration du transport nan la ñu mën a demee di génne seen base de pour di supprimer benn nit dafa am permis il faut arrêter. sa c' fee un fait banal lii écoutez gendarme police wala gendarmerie bi nekk si bi xotaan moo koy réglé et puis on n'en parle plus ce qui se passe mooy dafa may fay yoo xam ne. suñuy njort la mu alerté ndax dañuy yor xel di xalaat ci kanam enquête dina ko wane ndax du ñu jiitu police ndax moom moo yor toutes les informations ce qui est mooy attestation bu ñu la defaral le huit mu war a expirer le dix ñu renouveler ko attestation benn waru ci passé cinq jours ci li ma xam man. Mhm. attestation benn waru ci passé cinq jours la plupart du temps souvent sax bu nekkee policier bi da ngeen da la ko da koy defal mu am noo tontoog moom vingt quatre heures koy def. Mhm. pour nga gaaw a dem jëli sa pièce. ndax attestation bu expiré mënatoo dawal valable bëlatul foofu laay tontoo Assane Mesere bu nekkee dafa présenté waxaana bu nekkee dafa présenté attestation bu expiré valable bëlatul ndax délit délit infraction ci tali dafa am ñaar délit bi ngay def yow miy dawal ak délit bi oto bi def délit bi oto bi def mooy oto bi manqué assurance mhm. manqué visite technique wala moo am bañ a am carte grise yooyu moom euh, immobilisation nga war a jot oto bi da nga a mhm. oto bi dafa war a taxaw beneen bi ñuy jël sa peine mooy yow infraction bi ngay def ngay téléphoné wala nga bañ a takk ceinture wala nga brûler feu rouge wala wala wala wala yooyu sa per la ñuy jël du ñu sax jël carte grise bi mhm. dañu jël sa permis attestation dama jël sa parce que yow yaa def délit bi xam kon noonu la léegi moom dafa def dafa am ñaar oto bi dafa mbëkk nit mhm. borom vélo déjà fi ñu commencé rek mooy le fekk ñoom ñu bëgg orienté nit ñi borom vélo bi moo daw ba dal ci kawam même borom vélo bi bu dawee ñu waxee constat dañuy constaté mhm. après ku nekk da nga dem topp sa ñu ne mu présenter les documents qu'il faut parmi les documents dafa am problème mu permis de conduire léegi nag xam nga lan mooy wax bi fi fi malheur bi nekkee mooy te Yérim bëgg manipuler nit mooy numéro permis bi nekk ci attestation bi police tey ci xibaar yu ñuy jot nee nañ numéro permis boobu boo demee service des mines pour am nañ dooy new ci ah non mais c'est un problème c'est c'est gis nga c'est que am na yoo xam ne gis nga di di réew mi bu ñu ko foyee gis nga suñu matricule d'identité permis de conduite yi nga xam ne dafa am ay numéro ay identification la. yërim permis bi dama ne la permis de conduire ministre bi ministre bi permis de conduire dafa am anam yu yoon waxee ci lañ koy nangoo ci nit. léegi nag waa waa waa service des mines nañu porter plainte Cheikh Yérim Seck. Ah, si waaw déglu ma la. déglu ma parce que Cheikh Yérim Seck il peut il peut se baser sur sais très bien que. Cheikh Yérim Seck il se base sur. du faux Cheikh Yérim Seck bu nekkee këyit yi Ameth Ndoye moo ko ko jox. deful la dem vérifier ji. le truc xam nga mooy wax bi. numéro permis yow mii Assane bu ma la ko joxee su la neexee nga woote ci service de service de mine nga vérifier numéro permis hmm. moo carte grise oto ñoo yem. technique bu la jaayee oto. mën nga woote bu la neexee sax ba douane nga joxe numéro sachet bi nga wax leen oto bi fay na douane wala fayul douane ils te diront que oto bi fay na douane tel jour tel tel tel ndax information yi noonu c'est c'est accessible à tout le monde numéro de permis soo ko joxee nañ Souleymane Diaw 10 88 100 nangam bu ko joxee dañ koy naan permis bi Souleymane jow moo ci nekk dañ ko ko délivrer tel jour mu war a expirer tel jour tel tel lépp dañ koy am waa léegi ñoom bu ñu voté joxe numéro permis ñu ne numéro permis bi gisuñu ko waa service des mines ñoo effacé numéro bi wala ñoom ñoo joxe numéro permis ki ko jox attestation bi nag ñu ñëw foofu noonu. Mhm. c'est des faits courants qu'on voit ici nii. Sénégal dafa bari ay nit ñu mën a lijjanti. ñu bëri ñu koy tuddee basang. basang lañ koy tuddee Assane xam ne li may wax. basang lañ koy tuddee xaaral rek. xaaral rek basang lañ koy tuddee. xam nga ko yow. xaaral ma wax la ah, non Assane dañoo nekk ci penc bi ah, di waxante ah, dëgg. bu ko ñu wax nit ñi li ñuy xam. gis nga ñi koy yore ñu bari ñu bari dañ koy yore ci chauffeur yi. souvent nit ki day am këyitam yëpp. Mhm. yor da koy yore pour ba ñu mhm. da ngay dem nga ne maanaam dañu def attestation ne la dañ laa jàpp dañoo jël sa permis fekk sa permis bu ngay yow da ngay bañ ko ko jël léegi ngay dawal attestation boobu nag gis bu jeexee da demaat fu nga ko woon nga lijjantiwaat ko réew mi il faut ñu arrêter pratique yooyu noonu léegi nag moom moom police dina enquête police ak lu mën a xew dinañ enquête mhm. mais moom ce qui est sûr bi ñu ko joxee circonstance atténuante ne dimanche la dama nga jëlee sa su fekkee ne dafa am difficulté ndax permis bi dafa nekk ci benn commissariat mënu ci jot da ngay ñëw da dem ci commissariat boobu nga ne leen dama am problème ak gendarmerie bu Sébikotane sama permis fii lañ ko déposé te mun leen ma ko jox dama bëgg ngeen entrer en contact ak ñoom pour ñu ngeen pour ngeen attester leen ne man am naa permis mhm. ñooñu bu ñu ko defee le travail sera fait mais bu fekkee moom dafa dem man sama oto dinañ ko jàpp gendarmerie gis nga wëpp gémmiñ boo xut dëgg rek wax safaan lii moo am léegi nag nañu dem ba ci kanam enquête bi leer mais ce qui est sûr et muy moom muy Cheikh Yérim muy keneen ak keneen ñu toogoon ci bërëb bu fekkee ne dañoo jàpp ne yor nañ kàddu bu mën a dévier benn Sénégalais il se trompe lourdement am nañ droit na engagé seen combat c'est pour vingt ans anyway amul problème nañ ko combattre comme ni mu mën ni mu demee ay Sénégalais lañ mhm. waaye ñu bañ a teg seen bopp fu romb sénégalais yi ndax ñoom gënuñoo nekk citoyen gënuñoo tekk ci dëkk bi gënuñoo xam am ci réew bi te ëpp ñu cër ci réew mi. loolu dama bëgg mu leer nañu ci bopp sénégalais yi. jërëjëf El Hadj Modou kaddu yi rafet na